Jean-François Domergue. Jean-François Domergue ah, avec Chalana. Tu es vraiment un passionné de football en tout cas. Alors, on a parlé tout de suite de, du cas de Krépin avec euh, des supporters qui qui sont bloqués Côte d'Ivoire euh, euh, il y a eu un communiqué qui dit que le président de la République demande à ce qu'on les rapatrie par avion. Moi, je pense que euh, tantôt, euh, Nefti TV l'a dit, me connu de passage, que c'était à cause du retrait de la CDAO. ils ne peuvent plus prendre la route pour d'El Souad Finga moi du Sénégal. Alors, que penses-tu de ces deux cas de figure, déjà par le cas de Crépin Diata, avec des supporters qui étaient bloqués en Côte d'Ivoire Pour le cas de Crépin, man damay sukkandiku ci communiqué fédération mm-hmm. man la ci tu rek là, ci parce que

ci li moy sukkandiku moy damay xaar ba fédération génne communiqué. Mm-hmm. mais quand on ne peut pas être plus réaliste que le roi. Mm-hmm. mais Augustin c'est le premier vice-président de la fédération sénégalaise de football et d'ailleurs nous chargé des affaires juridiques. de la fédération de la CAF. Mm-hmm. Augustin qu'on dit pourquoi nous ne bëgg proclamer une sanction pour la fédération génne Gogo, ko peut-être que nous avons aussi Amana, jëlee nañ ko bokk les secrets de la fédération sénégalaise de football génne ko peut-être mais balaa ngaa génne di wax loolu xanaa boo ki nga xamante ne moom lañ teg foofu moo xanaa su ko génnee wax ko ñu mën cee sukkandiku man daal fii ba ker ba fédération du génne communiqué man loolu duma ko gëm Marcelin mhm. voilà effectivement alors ñu gis supporters yi nga xamante ne ils sont bloqués euh, fële ca Mali ku ci nekk def na ci tour de table wax nga li nga xamante ne moom nga ci xalaat euh, apparemment c'est à cause du retrait de la CD du Mali de la CDAO donc noo gisee euh, seen dem boo xamante ne te nañu ñibbisi hmm. xam nga balaa ñoo dem Coupe d'Afrique ñaari groupe supporters yi dama leen dalal fii mhm. bu njëkk bi Issa Laye deuxième bi ñoom Paco ñoom Fall ñi ñëwul ñii mooy ñoom mooy mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak ñoom Paco ak ñoom Fall xam nga man bañuma ku ma mere mais soo may mere danga may mere ci dëgg et si télé laay waxee mhm. te xam naa suñ génnee fii dinañ ko dégg gis nga ñoom dañoo fóote bu ñu raay raay affaire bi xam nga foote mooy lan. Mm-hmm. nit ki sooy dem ci dara da nga xam ni maa ngi dem le 10 maa ngi war a ñibbi si le 23 wala maa ngi war a ñibbi si le 24 quatre. Mm-hmm. jéemal assuré wu ni am nga paasu allé am na loo fay yoree nit ñi pendant du 10 au 24 ak tamit soo leen paree ni ngeen war a ñibbisee mais ama grande surprise ce que j'ai dénoncé Fall mii invité naa ko. foofu nee naa ko mais naka la ngeen ne da ngeen dem supporter ji ay nous aimons le Sénégal mën damay tax a dem mën dem mooy tax dem ne que j'aime le pays dama fay dem mais gis nañ Paco man man man je n'ai rien contre hein. Paco ko mu ne amuñ fu ñu ci ay mer gàddu lañ affaire compliqué mais c'est compliqué ngeen compliqué ngeen toog nga ces histoires de de de de supporters là ces deux trucs là supporters de Issa l'a les mains propres loolu moo dul mm-hmm. dafa am loo nañ jéem a xool naka lañ koy waxtaanee ba jéem a solutionné loolu mais quand à dem foofu te mënoo dem loolu loolu da lay da lay tuuti sax da lay décrédibiliser. Mhm. supporters yooyu nekk foofu da leen da leen décrédibiliser non on a pas les moyens pour venir mais soo amul moyen pour ñëw sama gars yi da ngeen war a toog xam nga gars yi dégg naa sànq ba tey ñu ngi raay raayal non CEDEAO du mbiru CEDEAO ñoom ñoo ko def ñoom ñoo ko def gars yi ñoom ñoo ko def. parce que def ko bi xam nga mooy lan. je pense que avion la ñu waroon jël au lieu que. non amul mais mais mais mais am na am na ñoo xamante ne yoonu suuf bi lañ jël. problème bi mooy dañoo forcé dem bi. parce que dañoo am problème ak supporters yi. mooy douzième gaynde loolu mooy dëgg bi. mais pourquoi ñaari supporters tamit bay seen. pourquoi ñu boole def benn il n'avait pas les moyens tu sais. moi j'ai eu à les inviter les deux entités. si si. je les ai invités ici à Dakar. et je les ai même invités aussi fële à Yamoussoukro. Mhm. que ce soit Fall avant le match face euh, aux éléphants de la Côte d'Ivoire et ça allait dès l'entame de la compétition. donc j'ai eu à savoir attention, il faut me fêter. jusqu'à ce que nous sax ñu dit que nous dox li nous mooy dit que mm. la NPS mais que nous gars dit que nous su dit moyen dem non nous forcer dit forcer gars yi bu que forcer war dit forcer pour dem que nous ni que nous mais nous, nga dit que Paco dem nous dem monde bi nga nous lañ nous derrière mais que mënuñ gérer y nous mm. dafa am nous nous

ils n'ont pas pu avoir ça et que euh, am demander euh, demandé nañu njëkk pour euh, président de la République jàppale na et apparemment hier il y a eu un communiqué qui est sorti si c'est avéré ou pas je ne sais pas encore parce que communiqué génn disant que le président de la République va les les les rapatrier par voie aérienne indiwaat leen fii ci Sénégal en tout cas ñu leen di ñaanal jamm rek que lolu mu nek deug suñu joggé fofu nak pour jeexal revue des titres euh, dañuy jàll ci ki nga xamante modi moo di ak Balla Gaye 2 ñaar ñep ils sont en voyage en ce moment pour préparer li nga xamante modi sen combat démb ñu xaw cee laal ba Mbaye Diop ak ki nga xamante ne di Souleymane Diagne bëggoon fee xeex si plateau bi ma àtte leen donc euh, Mbaye Diop ma dellu siwaat ci yow rek euh, nga wax ma un peu peut-être euh, combat wu Tapha Tine beeg Balla Gaye 2 bi noo ko gisee la préparation parce que démb on était plus accentué si ki nga Eumeu Sène ak voilà Eumeu Sène ak Sa Thiès donc tey Tapha ak Balla Gaye laa bëgg ñu waxtaanee tuuti mais balaa ngaa jël kàddu bi damay jël ki ci ligne bi dellu siwaat si yow allo salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah waaw kooku Aliou lañ koy woowee Aliou ya mbaa yaa ngi ci jàmm sant yàlla wér wér yàlla na yokku yàlla na yokku amiin yaa ngi maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp ñu ngi lay fay di di di dee mbay mbay jóg <laughs> sn man kay moom mbay maa ngi lay ziyaar bu wér wér di lay jox sa wàccuwaay jërëjëf maa ngi lay fay waaw mbay mbay maa ngi koy nuyu bu baax hmm. parce que mon frère namoon naa la nag. pour ñu dégluwaat la tuuti. naa la raw da nga may da nga may jàngal lu bëri daal. jërëjëf wàllu football rappel la macha allah. jërëjëf jërëjëf day jëm moom rek. ni ko Marcelin di waxee. mais <laughs>